meew pëndëx ak itam yàpp ganaar yu périmé lii mooy li brigade départementale bu service d'hygiène bu dakaar nangu ci marché bi gannaaw ba mu saytoo ay marché yu bëri ci capitale bi ñii di yëngatu ci wàllu wérgu yaram nangu nan lu war a toll ci fanweeri ton ci ay produits yu périmé. wàññi sa mbalit nag concept la boo xam ne dafa bëri ci biir li ci xew bokk na ci li ñuy wax contrôler ñu maanaam saytu denrée alimentaire yi nga xam ne moom la nekk ci marché bi ñu ñuy jaay ndax baax na wala baaxul ñu def ko ci marché bu Tilène def ko ci marché bu Castor def ko ci marché bu Grand Dakar waaye li ci ëpp saisie bi ñu jël marché Grand Dakar la ak Parcelles Assainies. ci yooyu marchandise ñu nangu ñu mën cee wàññi. lait bi ñu tuddee vanilla ñoo ngi si saisir 157 sacs 157 sacs yi ah moo ngi yu 10 kilos maanaam yu fukki kilo waaye eh, benn saak bu ci ne moo ngi jar mille francs bu ñu dajalee loolu mooy joxe million millions 611 mille francs ñi ñëw ci lee importé bi am na lait boo xam ne dañ ko importé. saisir nañ ko ci dix sacs yoo xam ne bu ci ne vingt cinq kilos la maanaam sac bu ne vingt cinq kilos la ci biir vingt cinq kilos yooyu lu muy jar benn bu ne moo ngi jar soixante sept mille waaye bu ñu dajalee loolu yëpp moo ngi jar six cent soixante dix mille francs CFA. ñoom njiit yi di gën a ñaax askan wi ngir ñuy bàyyi xel li ñuy jënd. produit jënd ko neex na yor sa alal jënd ko neex na waaye balaa nga ko jënd tàmmal di lire étiquetage bi maanaam. li nga xam ne mooy wane ni baax na wala baaxul wala jeex na wala jeexul boo leen ko xamee rek yu bëri dinañ ci mën a moytu surtout ci meew bi. brigade départementale bu service d'hygiène bu dakaar nangu na lu tollu ci fanweer ak juróom-benn ton ci ay produits yu périmé ci xayma loolu war a toll ci juróom fukk ak juróom million ci sunuy koppar. bu nu sukkandikoo ci njiit yi askan wi gën a bàyyiwaat xel marchandises yu ñuy jënd doon na gën a yombal seen liggéey.